dañ koo wax te mu dee manager yaa ngi di la dégg respecté lu nekk man maa ko man Serigne Fallou liñ ñu ko laaj dama yàgg ci manager dañu xoolaat mbir mi seen seen kooku kay ñëpp ñu toog rek la wax. def les états généraux de la lutte. voilà parce que lii du yoon Abdou Babou mi xamul fu mu doon ni fu Ama Baldé mais xamu ko bu la ko waxee moom xamu ko ñu ngi toog xamu ko jërëjëf Modou boo xoolee tey tout d'abord nan nga jàngatee événement bi nan nga gisee événement bi bi nga ñëwee gisoo ama am nga déception. jërëjëf léegi waaw. am naa bi combat dem ba Kola si ànd ak Kola. ci wàllu mbër ñëwul. maa ngi lay leer mu tudd ko. comme li ma rek bu ñëwoon day gën a neex te lu ko téye yàlla na ci jàpp mais comme ça moom la ñu gars yi ñu wax mbëri mbëri mbëri mais ñu ñëw wax dëgg yàlla man lu ma si nekk promoteur dinaa def sama kéem kàttan ba jéem ko remplacé waaw ba tax na dañ koy ñaan rek lu ko téye yàlla na ci jàpp mais daal doon na gën a neex xam nga. mais am nga déception. lan nga doon wàññi di face à face par exemple. waaw boobu ñu foofu dañu am moment signé promoteur bi contrat bi leer tey war a jaay suñu affaire bi tey contrat yi war na ko seen di ñëw waxante am supporter yi contrat ñuy seeral contrat ñu jaay bis bi wax dëgg yàlla loolu laa xam loolu moom loolu muy mais comme am rek li may wax ñu ko tey yàlla may ñu jàmm te xam nga bis ba incha allah le cinq bu ñëw ak jàmm yàlla may ñu dal ci kaw soo yàlla. nan ngay waajee. waaye comme ni ñu waayee sax waaye ñoom ñu si waxtaan yi ak ñi ñu àndal ñu ngi doon voyagé même parce que damay nuyu sax ñoom perte la ñu àndal ñu ko somba sama ménagère as di nuyu waa RSG aussi ñoom laaj ñoom kii ak ñoom John Bessin waa RSG waa Jabaate di nuyu comme voilà man programme bi ñu indi xam nga ñu ma lay leen wax rek mais bu gënoon ne ñëw def mais li ko tee yàlla nekk jàmm gisoo ñëw ak jàmm yàlla may ma dal ci kaw incha allah jëlee ko lan nga leen waaye di leen euh, wax ni di leen jégalu encore parce que li may wax ñi ma àndal di ñëw fii bari na trop trop oto yi dul teewul mais dañuy ñëw xam nga amuñu accès fii mais lépp rek seen secteur contrat dañoo waxante ñu ñëw yegg si ñun remplir suñu contrat di leen masawu baax a baax di masawu passé li ma jugee di tennis parce que bu ñu jugee biir yu bari da ngay soxla dëkk bu nekk am na la ko fi mën a ak Sénégal nekk daal ñu ngi lay nuyu di sàkku ci yow ñaan di wax Sénégal yàlla fi yàggal jàmm di nuyu sama frère bi di ko ñaanal jàmm yàlla ko ko toog bépp ah di nuyu am ci moom balaa ñu kii waxee pour def remerciement yi comme suñu personne bi. c'est vrai balaa ñu ko baax baax nag. waaw non mais damay ñëwaat ci yow. lu ñu waroon jiital. waaw mooy sponsor yi muy café yi. waaw parce que tey bu promoteur mën a fay ay millions sponsor mën ci jàpp parce que amaana promoteur bu bëri zone ci biir wala yoon rek. ba yegg fu mu bëgg a yegg ba tax na dañuy ñaan ñi fi nekk ak téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp ñu dem téléchargé ci KPA yi parce que suñu yëfu bopp la ñun ñoo ko moom te ko moom di nit bu baax di taxaw Sénégal li nga xam ni ñu bari xamul man day day benn problème bi nga xam ne ailleurs la xam ne ni xam naa ko rek boobu duñ tourné woo mën nga ñëw dem teraanga dem defal na njabootam te yàlla nit ku baax la lu ko may defal Sénégal lañ def parce que li mu am Sénégal la koy def te bu bëggee ñëwaat fii la koy investir ba tax na damay ñaan ñi seetaan ak ñi fi nekk ñëpp dem télécharger ci app yi ci App Store wala Play Store waaw Sénégal lañ def. Alaaji noo gisee eh, événement bi ak ñàkk ñëw Amadou. non non li ko daal daal la doon jàpp Ama Baldé li ko daal daal la doon jàpp ne yàlla combat bi dina am góorlu. waaw dëgg maa samay supporter rek ah. di nuyu waa fédération xale yi. waa xale yi ñoo yore xale yi ñu ngi am ñu ngi leen a doyal xale. te ñu ngi ko mos a yëpp yu cittadina organizzata anche da un No, quelli che giocano con Venex, wow, quelli che giocano con Venex, giocano con Venex, giocano nañ ko posé

dans toute leur rigueur je pense que loolu moom moo ñu ci mën a génn te ñun ñii tamit nga xam ne ñi suñu fukki gis ak lu teg yëpp bisu mag lay doon comme bisu bi jaaxal vraiment supporter yi yaa yaa ngi waaj yaa ngi ci ñu leen man làmb coow moo am rek faaw mu am pour jaay làmb ji mais wax dëgg yàlla terewuñu nelaw terewuñu lekk terewuñu def dara ñu def ñooñu suñu entraînement di dal encore xel supporter yi di wax rek force de l'ordre yi kenn amul seen bay di waxalaat ak jeunesse su Sénégal chaque fois dañu gën a dal di wax Sénégal jàmm rek moo te jàmm moo war a am mu xam daal ana xel yi parce que force de l'ordre di nelaw bu nit ñi di def lu nekk ñoom ñu ngi terrain bi vraiment boo rombee chaque instant dañ leen yërëm wallaay aw yi te doomu aadama rek koy ay yëpp tey ñoom bu ñu nekkalee ci naaj bi ñun war nañu nekkal ci kër yi muy ñu may ah, rek may wax dana su li may wax chaque fois ñu ràññee muy résolution violence boo gisee nawetaan yi boo gisee lu mën a am rek yaa ngi gis si ñoom li nga xam ni warul am te ñun ñoo yaakaaru réew ëllëg ñu jeunesse yi ñu ñoo war a yore ëllëg ba tax na nañu dara ànd ak suñu xel lu ñuy def dañ ko teg ci jaro mais xët-xët xeex fayu dara di ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bala sàng ñu ñëw noonu violence wax ku ñëw si porte sa mbër yàlla may ñu def pour ñu ñu wax ay jàmm incha allah loolu lañ ñaan rek. jërëjëf ñu taw fekkee ndox ba ñaan incha allah. jàmbaar yi tàllal nañ leen seen suñu loxo. di nuyu Mansour de Passage. waaw ça va waaw. dañuy sargal rek ci bis bu mag la liñ ñu mën a jox. parce que yéen eh, ko li ñuy wax sant waa nit moom boo ko daan commence ci lu mu nekk day gis tey mu koy daan commence te euh, dem na ci làmb li nga xam ni kenn ku weer daal. moo tax drapeau bi mérité nga ko. waaw comme li nga wax rek ñun dañu nekk ko muy préparé ñu combat carrière la ñuy parce que sport dañ ko def suñu métier bu ñu xëyee dem seen bureau ñun ñu xëy dem ci géej gi wala ci saal yi ba tax na ku ma xam xam ni combat ñàkk combat man ci sumay entraînement d'abord tamit di accompagner sumay rakk yi nga xam ne dañuy am combat chaque fois. su ma amee combat ñu taxaw ma def lépp lu ñu mën ñu ne bu ñu amee combat damay def suma kéem kattan ñëw ci waajtaay yi ak ñoom ñoom ñu ko pare ñoom ñoo saytu comme li nga xam ne combat bi nag ñu ngi pare comme ni ñu pare xam nekk suñu ginnaaw ko suuf bu ko dee jéggi sa stratégie yi ñu joxal incha allah dañ koy fas yéene ko jàkkaarloo ak suñu adversaire bu soobee yàlla. jërëjëf Modou léegi nag.